kay kañ waaja daaw way ngeen ji yonnen yonnen fal ko muy xutbu boroomam li way wi walaf te ma dégg yaaramoo damaanar gaay jàngul xam boroomam ma kañ ko te way ko ndaxte mu dolli may may جول سنا وريلي كان برامم من في جلارة تسلي في ندم تو خرباخ يتنجين خم برامم تخجي الله فالخنان مقامام تخرباخ يا تم يا خم برامم تولي يا تخوسيه sax fa diiwaan ca xutbu ya ak ña daaweet boroomam ña yàlla ak yonen ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam te wax ji moo ko wax ba konoon yooyu bokku di nga wax ji moo ji yoog boroomam ci ki jëla lambe yàlla ba fekk mu tànq jëleeri xëy bu ya boroom ci gi jëla daqe seytaane ki jaalam bu ñuy maaj muy taxaw faratay boroomam ci géej la bàmba tijjee ndam bi xam-xam ba faf yor aliway xalim ak boroomam ba àgg ci yàlla àgg ci ngën ji yonneen ñu soppi ko soppi léppam muy boroomam saxal foofee jihaari bakkan ci ay at di boole tagak juleeg wéetal boroomam ba faf seey mel ni suukër far ci yonnem di moom muy moom ci baatin cay boroomam ñu bokk ko fol te fol ko ngërëm mu fab kun ñu womma turu yi jox ko mu jox boroomam di kenn ku ñëpp xam foofee ci baatin tubaab ya di bañ sëriñ sa boroomam mu faf tib janti tiim jëpp duniyaa di taalif téere yi sellal boromam malaaka ya beerab pal ga mu am fa diiwaan malaaka ya seere pal ga mu am fa diiwaan muy fal ay xutbu yi déeg balaa la fa am ci peyi aras ci baytin ñu diisoog daam te mooy jaasi boromam te mooy wutaatu yonnen far ci kaw suuf di mbootam kun ci lépp lu so boroomam cheikhul xadim mu lakk ngërëm ci zahir ak ci baatin maqaamaam faw xam mboolem ñooñ boroomam sëriñ Tuuba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 jàngul liggéeyul mu seexal soo ko xam-xam ma boroomam di fekk murit bu dof bu tilim ferul baa mu fóot ba mu set tofal mboolom boroomam melay kaw yaag biiram dëppoo nañ du digle lu bon du déglu ku dul boroomam du moy ngir tiit du bew ngir mbég lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale ku dul boroomam du jàq du rët du jaaxle du fàtte yonen te mas la tawat lu xew ci ku dul boroomam du daw ay noon du yox yoxi ngir pexem nit du sukkandikoo ci mbamb ku dul boroomam lu mbir rëy rëy da koy far dolli ak gëm du yoqi du daw di mbër mu farak boroomam du wopp ba tax wàññi jaamu am du tiis ba mu tax mu war faratay boroomam du dégg nodd mbaab kàbbar te teewul du taw taw ak lu liw liw cey boroomam du tabye bëtiim du wuti musul di maamoom du gappuru bis du wéeru jilil boroomam du yeexal wenn waxtu te la fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax mu bodd kuréel yo koy laaj du denc alal du dul téerey boroomam du tox di tëjoo ki dëkkaay leen ci ay kër weeta ma nga ca yonneen mbaa boroomam du dox di nelaw ci ay lal guddi cay kii du lekk ba rek day mos ngir boroomam di far ay moy di gàddu tiis ci aw nit di sotti may di jël sànju boroomam bu natt jógaa ak njabootam mu dar daar loo ko ngir ànd ak boroomam yërëm naw ndaw xamal na leen yoonu baatin teral naw mag ba jëppaleen boroomam yëppal nay mbër tabax nay kër ci suus yi xamal na ña woon ngirum boroomam te taal na ci réew mi taal bu dul fay ci duniyaa mësee fu la gis kemam ciy moog boroomam daa ba ni kekk nooy ba ni nemm ci wet te am jàmbaar gu tar te ragal boroomam woyof ba ni toy diis ba ni gann ci wet lewet ba ni domm saf-sàpp boroomam sawar te lefoog te yaatu te xir te am ngor di tab budul jéela lu mu am jox boromam rafet jëf saf xorom du waxaate réewul bari teggiin ci ku mu gis ngir boromam lu xejeki seen du ay bokkam du jaambur ku ñu mu teral digal la nga xam boromam du boddi du ñax du jànni du xotti saatir dalay yaatal ëffël la nga mel ni doomam du màtte du jëw du xool lu warul te siisul du rummi du mer du xul ci lu dul boromam du xaste du dóore ñàkkul bay fayantoo dog war maa bokkam ba boromam du reetaan nit du farfarloo du sot nit du yàqub der du tas nit ngir boromam ndaxam ji waay jikko yi waneen ma ne fu lelim ngëneelam yeg boromam hmm. fu ne raaseeti waaju mel ni mii woyof na ca kaw te na ca biir boroomam fu di raaseeti jant bu dem ba njaloor tey yépp gox di kenul boroomam fu di raaseeti waajoo xam ne buy wax ku nekk di lox di làqu ku dul boroomam fu di raaseeti kook bu jago geesoo day romb dërëm ya jëm ci mbirum boromam mhm. fu dee daa seeti waajoo xam ni buy way arafu mu def aras di ci bég boromam fu alxuraan ji di def ci taax di taalif ngir boroomam fu ni raan seeti kuy gis ahlu di ànd ak ñoom tey deyaaleeg boroomam fu ni raan seeti waajoo xam ne fu mu teew ku wopp mu faj ku dee mu yëgal boroomam ku bañ di xutbu bayraasi moroomam du bu ni mel ci ji jamonoy boromam ñi sey fukka woon ca gaaya wéer ca baawoon xarnu yi nuy jubit du ci ñëw moromam ku weddi ba tax nga bëgg ni maay moromam na def li mu def te wax li mu wax boromam te dox li mu dox ci réewi Gabon woo ci ay noonam te fekk fi moromam te sàkk ku mel ni seyxi ibra faati wa ahmadu ndumbe ak lamp boromam te sàkk ku mel ni seyxi abdurahmaan loo ku juddi ci mbàkke moo la xamal boroomam te sàkk ku làq jagleeg sayidil muxtaar ka dem ba siyaar yonen moo ki doomam te seexal kem li seexi bamba seexal te selal seeni xol ba ñu xam boroomam te sàkkal leeni mbooloo faw yuy jëf te tàggat leen ba duñ mën a mooy boroomam te kat na saxa liggéeyal ngeen ji yonen te bum tere muy taxaw faratay boroomam te dootu nelaw te day daw soxna yamu am di daw seytaane tey wéet ak boroomam te bu mu yokkat te bum jénnal la muy jëf te bum njëstal ci jëf na ragal boroomam te bum diingat sëriñ si te bum fayantoo te bum bég ngir ka koy gottil moroomam te bumu xas nit te bumu jëwit bum rambaaji te bum fenn bum dokku mbokku moroomam da xam xol di xam baati nëpp nit di saafaray ragg di xalam boroomam te bum digle ka aaya ci wàllu bakkan di woota ca kaw te biir ba gisul boroom boromam li nga lépp doy na yow Moussa taxawlul ba tey jotagoo lu mat asakay boromam ku dégg ñu jàng way wi nang ma ñaanal maam gërëmam da sax fii ba xam borom